fii la ñuy compétir moo gën a baax ci terrain Kaolack yi bu fekkoonte ne lu baax lañ bëgg de ak loo xamante ni pour njëriñu askan bi la mënoon nañ ko boole ci choix yi. mais defuñ ko. li li li li li ñu bëgg daal mooy ñu ngi leen di avertir suñu deful li ñu soxla lijjantil ñu yoon bii ñu mën di génn lu ñu gis ñu xam ne ñun ñoo ko ñun ñun la. bañatuñ ci dara fi nekk nii. bañatuñ ci dara. yoon lañu bëgg. yoon bëgg. yoon bëgg. yoon bëgg. yoon depuis équipe équipe municipale bi nga xam Mariama sar moo ko jité woon lépp loo nañ ko bind correspondance lu ne depuis amuñ solution monsieur le maire bi fi nekk bi def campagne ñëw na fi lu nekk en personne gis promesse yi ñu joxoon ñun waa Ngane bi ñu ëppaloon solo gënal ñu mooy mbedd bi te newoon na bu yéegee dana ci dana ko defar yéeg na boobu ba léegi toog nañ ñu ngi koy xaar gisuñ dara ba avant ñuy def manifestation yi dem nañ ba foofu lu nekk def nañ ko ut rencontre ak moom mënuñ ko am am na programme yoo xam tëraloon nañ ko fii ñu jéem waxtaan yi yëpp def nañ ko mais gisuñ benn solution daaw foraay ñu doon def fii pour problème u quartier yi man mi maa représenté woon quartier bi ngaan alsaan la ma fa wax lii moo doon principal problème ba wax nañ ko fa depuis boobaak léegi ça fait plus de un an nu ci am benn solution bu fekkee nag ñoom dañoo incapable nañ continuer def lu ñuy def mais bu ñëwati fii waaw léegi nag bu bu yàlla dogalee élection wala ay campagne amaat fi ñun bëgguñ ñu gis leen fi parce que dootuñ sonn pour ñoom ñun dañuy bëgg bu ñuy sonn ku nga nekkalee ci naaj bi nga nekkal ñu ci ker gi waaw dañu war di génn dañu war di dugg suñu quartier comme ni ñu ni ni ni ko ñëpp. foofu moom bu xa yàlla ji xasee taw bokkatul ci programme mu yoon bi yow boo gee boo xoolee nii xam ne fii depuis deux mois trois mois ngi nii benn oto jaaru fi keroog rek seen oto mbali bi fii la ñëw ngiro fi. xam nañ ko bu baax xam nañ ne ngaan entrée bi nii mbedd bi jëm poste de santé bi baaxut. te moom lañ am comme entrée ak mbedd bi nga xam moo jaar buntu kër soxna Xadi Baara yeneen mbedd yëpp ñoom li andi problème bi ñoom. peut-être équipe municipale bi mun na ci mais cadastre ñoo dagg mbedd yi kër yi ne fii mbedd yi newoon fii yëpp ñu dagg ko def ko ay kër jaay ko nit ñi moo tax ñu ndox mi sonal ñu nii. daanaka insécurité bi bari na fi insécurité bi bari na bari na lool parce que la yow instant yi nii fii ngaan ñëpp xam nañ ne tool yi jardin yi fi la ne zone maraîchage la suñu jigéen ñi dañuy xëy fajar pour war a mën a yóbbu ay euh, euh, produit yi ci au marché. mais amna quantité produit bo xam mënoo ko yóbbu parce que yow bu féké tol bi ñor na pour nga génn ay 10 kilo, 15 kilo nga mëna a yenn yóbbu ko mais bala nga écoulé tol bi produit ba day yaqku té lool lan moko waral yoon bu bon buñ amone yoon bo xam auto bi dana dugg si ci biir ñew jël produit bi mais bu wa duñ am problème limuy limuy limuy pénaliser dafa bari mbedd ngaan bi ñun dañ ci sonu ñun ñi dëkk ci koñ bi dañoo sonu sonu nañ suñu njabar gi sonu nañu. man ba man présenté naa la benn jour benn xale bu jigéen mu nga jóge ba usine gaz romb dafa daanu si ndox mi dafa ñëw ba sama buntu kër ndax xam nga jege naa tëli bi mu ñëw ne ma soxna si doo ma abal yére ma abal ko yere abal ko kol mu dem hôpital te boobu jigéen ñi warul la kooku pourtant mënoon na cee dee si ëmbam boobu wala doomam mënoon na cee looru ñun waa Ngane dañoo sonn ñun surtout mbedd bii gis ngeen ñax mi gis ngeen ñax mi mbedd bi hôpital bi ku nekk ñëw na fi ku ñëw buñ la wonee boo demee toog fàtte ñu ñun nag ñun yor nañ suñuy carte suñuy carte mooy suñuy doole fi dugg fii ngaan fii duñ la votel ñun suñu tali bi lañ am nañu dimbale bi nañu dimbale suñu tali bii poste de santé bi tout près mi ngi nii bi mais fii war duna am ndox nañu canaliser fii ndox mi jàll sonn nañ ñun waa ngaan sonn nañu sonn nañu kenn du fi du fi dugg ku du fi dugg kenn du fi dugg kenn du fi dugg